aujourd'hui camp présidentiel ak seen candidat euh, nan la ñuy def ba tirer seen épingle du jeu euh, ci ci ci biir tumulte bi. camp présidentiel dañu war a xam déjà ni camp présidentiel du APR kese Benno Bokk Yaakaar moom nga moo soutenir Amadou Ba donc APR rek du entité APR daf cee nekk PS nekk ci. Euh, euh, parti kii bi Moustapha Niasse nu tudd AFP nekk ci LD nekk ci yeneen formation politique nekk formation politique yooyu yëpp Amadou Ba la ñu jàppale APR it une bonne partie Amadou Ba la jàppale donc ñu nekk APR yaakaar ni mën nañoo yàq candidature Amadou Ba ils n'ont rien compris parce que non seulement APR rek boo ko boolee mënula a mais même Benno Bokk Yaakaar kese mënta gañ Amadou Ba pour mu gañe il faut mu boole APR rek Benno Bokk Yaakaar jël leneen feneen boole ci soog a mën a gañe da wax donc APR ils ont beau s'agiter tant que ouverture amul tant que amuñu candidat boo xam ni dafay weesu seen famille politique ku mel ni Amadou Ba jël fii jël fii jël fii jël fii tànk amuñu loolu duñu gañe waaw parce que APR rek boo ko boole woon kese kese teg koy ko ne ñu am candidat ñoom dem duñu gañe tey Amadou Ba bu boolee li APR yépp am boolee li benn bokk yaakaar yépp am boole boppam li mu am sondage yépp 48 pour cent quarante 47 48 pour cent lañ koy jox <laughs> dégg nga wax bi maanaam bu boolee APR Benno Bokk Yaakaar transcender loolu boole la ñuy am il est il est pour cent des sondages donc APR rek gañewul élection bi Benno Bokk Yaakaar rek gañewul élection bi ouverture mooy gañe élection bi maanaam am 48 pour cent dem deuxième tour fexe ba trouver compromis ak force politique yi ëpp doole ci réew mi pour mën a gañe looloo fi ne amul leneen amul leneen te xam nga aussi fatalement tey Amadou Ba bon mu baax tey boo naroon remettre en cause candidature candidature ci Benno Bokk Yaakaar mooy tas nga Benno Bokk Yaakaar tas nga parti bi nguur gi moom perte nañ pouvoir bi loolu définitivement loolay signifié naa nag ñoom ñoom leen rek moom mooy mooy mooy kii ñu jël seen responsabilité soit ñu décider conserver la pouvoir ñoom ñëpp ñu booloo dajaloo nekk ci ginnaaw Amadou Ba boole li ñu bëgg ak li ñu bañ ak yépp pour mën a avancé wala boog ñu tas yëf yi këpp seen yalwaan keneen jaare na leen gagné te nag attention nguur moom képp ko pet surtout euh, euh, euh, ñi ni ñu diriger nguur geeg càcc geeg ay contrat ay rapport Covid 19 ak. ay rapport cour des comptes yi ñu étouffé dossiers yi Macky Sall teg jël con ci tontoom bés buñ partee nguur gi dañu xam nii lu yàlla lu yàlla <laughs> buñ partee nguur gi dañu xam ni yëf yi du foddu ree non mais parce que ñi ëpp intérêt à ce que ñu garder nguur gi ñoo ñooy gën a dof dof lu pour yàq yëf te bis bu ñàkkee nguur gi avec les rapports yi nit ñi xam ak yi nit ñi xamul danañ xam ne yàlla julli la santaane loolu mooy dëgg gi mais mais mais bu ñu naxante voilà qu'est-ce qui se passe euh, dans la tête des gens de la majorité on, on se demande est-ce que ñoom xam nañu politique est-ce que ñoom am nañu un parcours euh, politique est-ce qu'ils sont conscients réellement des enjeux euh, de cette élection ah loolu xaw ma ñoom daal loolu ñoom la concerné parce que man faruma ci ñoom sama newul ci moom dama laa yàgg wax ni waa APR dañoo soxor benn feetu soxor boo xam ne nii ay nit la ñoo xam ne nii kenn xam parce que am na nit aussi mën ngaa soxor te doo soxori sa bopp mais soxor ba soxoree sa bopp yow yaa ngi combattre koo xam ni nii bis bu ñàkkee yow tu perds te yow si tu perds yow ci ñi njëkk woo interroger la ci nga bokk ndax yaa ëpp ay dossier ci àdduna bi <coughs> il faut dans la aussi il faut savoir des choix stratégiques comprendre nga ba la te en plus amul kenn ci Benno Bokk Yaakaar ku ëpp chance gagné que Amadou Ba amul ça n'existe dans aucun sondage li tax Macky Sall d'ailleurs def ko candidat loolu moo tax nat ñëpp la nat Macky Sall ñëpp la natt gis ñi ñum natt ñëpp Amadou Ba moo ci ëpp chance pour gagner moo tax mu def ko candidat mais donc nañu soutenir seen candidat ba pare bàyyi complot bi parce que yenn complot yi yaa ngi koy def ci biir pale bi après complot bi ba aboutir réew mi yëpp lay yàqal yàq image yu réew mi jaxase affaire yi fi mu toll nii. Euh, da ngay toog ba jàgg sa benn copain ñàkk woo la wax la wax boo xam ne da ngay xam nga daal la ñuy dëkkate bu être comme tous les pays africains. parce que li xew Sénégal aussi may mu ne dafa mosul am fenn gis nañ sax réew yoo xam ni day waa ji day ñëw ni troisième mandat wala leneen mais yow élection amul élection amul foo koy foo koy waxee loolu mooy lan loolu mooy ban façon wax élection amul mooy lan loolu et puis loolu kan moo ko mën a dégg bu fekkee ni sax avant loolu. classe politique bi yëpp dañu daje ñu waxtaan ba juboo ci loolu d'accord mais xëy suba ne élection amul mais pour lool loolu élection dafa war am ñu daje na ñu waxtaan nañ trouver date rapidement conseil constitutionnel valide date bi ñu def ay élection Sénégal pour nga jiite ko faw ñu fal la pour ñu fal la il faut élection am